la Ablaye Wade na Sénégal gis accueil triomphal bi nga xamantene def na déclaration yi nga xamantene def na déclaration bu ñu ko dégloo ñëpp xam nañ ça incite à la violence président déclaration boobu yow bi Ablaye Wade def yow d'accord nga ci wala ci. président bi mu demee ba ci général bosam lan wax.

tey mu ñëw di appeler à ce que ñu boycotter les urnes bu ko waxoon de manière pacifique sax tey mën d'accord mais muy inciter à ce que ñuy brûler li nga xamante ne carte d'identité yi brûler li nga xamante ne mooy urne yi brûler li nga xamante ne tey mooy bulletin de vote donc le président pour man yow en tant que membre PDS war nga taxaw nga wax sa position waaw mais yéen comme da ngeen di comprendre d'un côté bàyyi d'un autre mën nañu continuer à bi noonu comme wax naa la li wax devant le calife mooy nit ki mu gën a respecté au monde loolu la wax moom moo ne brûlé soit mais Ablaye Wad, li mu wax dama xam ko mom dafa ne élection warul am dans ces conditions parce que japp nañ ne candidat yi peut-être nekkuñu au courant mais il risque d'être surpris le euh, résultat élection donc nous ni nous organiser parce que bu on est exactement à deux semaines de l'élection présidentielle carte électorale bi bureau yi a ñu bureau yi ñuy changer a carte pour changer carte c'est la folie

mais tontu bi dafa leeru parce que tey ñii seetaan war nañ mën a am yow sa impression ci

beneen moo don banco donc ma jiitu effectivement coalition Dakar bi donc je me répète yow da nga yow da ngay euh, da jël am connotation négative nga wax ko man damay wax connotation positive bi Moy bu élection am parce que ni ils sont prêts ils l'ont déjà fait à voler les élections parce que euh, fichier électoral ben candidat amuko man non la loolu laa jàpp yow li nga japp moy il a parlé de brûler les cartes comment yow da nga am briquet booy brûler ay cartes da ngay ñëw voté mbaa nga bañ voté fi am Ablaye Wad, mosul wax aussi ne nañ boycotté waxul loolu de man mosuma ko dégg bokk donc ku nekk da ngay dégg euh, déggin bi nga xam ne moo lay gën arrangé man wax naa la déggin bi ma il a parlé devant son marabout c'est l'homme qu'il respecte le plus au monde wax aussi ne ñii sàcc nañ élection yi ba pare donc vous ngeen demain, demain, ngeen di une mauvaise surprise